asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan euh, di ñu teewlu saa su nekk ci Télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu euh, di leen euh, ziara bu baax a baax tey nag ñuy dalal ki nga xamante ne nag moo di Serigne Modou Mamour Niang ambassadeur noonu lañ koy woowee moom nag mu nga féete fi nga xamante ne nag moo ci dëkk bu sell ba di Touba xam naa rek dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo. su ko defee ñu daal di dugg moom ci li nga xamante ne nag mooy actualité réew mi surtout nag li nga xamante ne mooy actualité politique bi euh, sëñ Mamour ñu ngi lay euh, nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Rama. Mhm. maa ngi lay delloo am nuyu ak ziar bu baax. Mhm. di nuyu waa Télé Sénégal TV yëpp. Mhm. ñi ñuy suivre fii ci biir réew mi ak ci bitim réew. di di la wax ñoo ngi dal ak jàmm. suñu nuyoo nag dañ ci jiital ki nga xam ne mooy sunu yaakaari tey ëllëg mhm. Cheikh Mouhamadul Mountakha nekkal fi mhm. mhm. di nuyu mboolem kilifay diine yëpp di nuyu mboolem ci biir réew mi ak ci bitim réew ba pare rek dañuy daal di sóobu ci waxtaan wi eh, fi ñuy dooree suñu waxtaan nag mooy li nga xam ne mooy actualité ci réew mi gën a fës bi nga xamante ne jamono ji eh, gis nañu kii di Ousmane Sonko di ko amal di dugg un peu partout si euh, région yi mhm. euh, di def nemmeeku tuuram boobu nga xamante ne mu koy amal waaye nag dañoo gis ne nemmeeku tuur bi jamono ji mhm. euh, coow li bëri na ci lool mhm. tey dèjà lan nan naka nga gisee nemmeeku tuur bi nga xamante ne kii di Sonko mu ngi koy def voilà Soxna man du ma def lu dul di ko di ko rafetlu nemmeeku tuur boobu Ousmane Sonko di def dama koy rafetlu di ko apprécier bu baax parce que Sénégal ñun ñëpp dañ fee bokk. Mhm. yam mhm. te it euh, dafa am droit. Mhm. dem seeti pop la population Sénégal. parce que Ousmane Sonko population Sénégal dañ ko bëgg. ba am ko teg. kon am na ci am na droit bu demee ba toog. ba jàpp ne soxla na mu saafonte ak ñoom. da ci am droit pour dem seeti leen. léegi nag li ngay dégg muy ñu muy coow ci am. ak ak ci am. du a lu ay manipulation rek la. Mhm. ak ay xoqatal ak yu demee noonu. lan moo tax nga wax. loolu nag. Mhm. loolu nag man mii di wax bo bokkuma ci kaw Ousmane Sonko. Mhm. mais man damaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy injustice. maanaam man lépp loo xam ne luy xañ nit ki ak ak yelefam la. man damaa bokk ci ñi nga xam ne dañ koy xeex dama koy bañ. tey du ma mas a neex. parce que moom mi nga xam ne moo rek di président de la République. il a onze onze onze ans ci ginnaaw tuuti deux mille onze. avant muy dem élection a wër réew mi yëpp. Mhm. def li ñuy wax nemmeeku tur comme ni ko Ousmane Sonko tuddee. Mhm. am na beneen façon bu mu ko tuddee c'est la même chose. dëgg la mi dem fi war a dem fépp. Mhm. te booba ki nekk. ki fi nekkoon di président Abdoulaye Wade. saboté wu ko amul soxla ci moom da koo bàyyi mu def. lu mu war a ah, def ah kay loolu amoon na ci parce que. mais sabot mais sabotage la ca a xeex. ak la ca matoon a xarlu réew mi yëpp dañoo taxaw kaas ko. ba ba mu bàyyi ko mu àggale ko mu mm-hmm. kon nag moom moom loola même bu fekkee ne dañ koo xoqtaloon sax wala ñu bund xa xataal ko mm-hmm. moom wurta répété waat loola mm-hmm. parce que moom askanu askanu Sénégal yërmandem ci la profité tey ba jot ci réew mi injustice bu ñu ci kawam ci la Sénégalais yëpp maase yërëm ko ànd ak moom ba teg ko ci réew mi tey kon moom wurta tegaat tànkam foofu ñoom Ousmane Sonko buy def nemmeeku tuur dafa waroon sax ñoom ñu accompagner ko mu def ko ni mu waree parce que mooy waree ne ñu xam ne ñun seen suñu mi léegi mesure na am na démocratie totale mhm. mais loolu ma rafetlu ma ko tey ñaawlu naa ko moom voilà. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. alors euh, comme comme comme ni nga ko waxee mi ngi def li nga xam ne mooy nemmeeku tuuram boobu. Euh, dégg mm-hmm. nañ li nga xamante ne tam moom nga ci wax mu nekk ci sa xalaat. mais tey est-ce que yaakaar nga ni nemmeeku tuur boobu tey lan lan lan la mën a jural ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko. daf koy apporter. daf koy apporter le soutien yu am solo. parce que bul fàtte ne ci ginnaaw tuuti dañoo waxoon ne Ousmane Sonko. def li ñuy wax mboddeeku ci kaw xeet. maanaam Casamance waa Casamance la gën a favoriser parce que ñoom ay mbokkam nangam nangam. Ah. Ah. mais tey nemmeeku tuuram bi gis nga fi mu démarré. Mm-hmm. mooy côté yi côté yi Petite Côte la tàmbale ay Mbour. ay Saly ay Joal Fadiouth foofu la tàmbale. c'est-à-dire loolu mooy wane na moom Sénégal bi dégg na te déggul na leen bu a baax. Mm-hmm. kon loolu lu mu daf koy apporter lu bëree bëree bëri ay ay ay soutien mm-hmm. dana dëgëral baasam bi mu amoon. en dana yokk ci li parce que Sénégal nag ñëpp dañoo am droit buñ soxlaa du dem laaji mhm. demande wala ñu dem ñu dem laaji baatu askan wi askan wi nag ñoom ñooy atte mhm. ñoom man li ma leen dénk rek mooy ñoom nañ gëm yàlla mhm. te bàyyi ko mu àggale tuur nemmeeku tuuram bi mu def moom it nag góorgóorlu nag ba benn insécurité buñ ko def waaw parce que nag dañoo wax ne kuy ku ñu tëru kuy tegg moo ci ay waaw ah, man noonu laa gisee. Mm-hmm. gis naa ne mi ngi koy apporter ay soutien yu bëree bëree bëri. Mm-hmm. parce que fu mu dem dana dem ca nitu diine ga fa nekk. Mm-hmm. mooy xam ci turu xumurid wala ci uh, tijaan ya wala ku fa nekkal tarixa yi fa nekk yëpp. dana seeti imam yi fa nekk. bu fekkee foo xam ne dëkk dëkk la boo xam ne ay chrétien am nañ dana seeti ka fa nekkal kilifa kilifa ak njànguma. loolu lu am important Sénégal loolu lañ xam loolu mooy culture Sénégal. waaw man dama ko apprécier bu baax a baax. Mm, dëgg mm-hmm. euh, ginnaaw bi ñu weesoo point boobu la ñuy ñëw ci beneen mm-hmm. point. muy fi nga mm-hmm. xamante ne foofu nga faree muy foofu ci tuubaa nga xam ne fa nga nekk. tey dañoo gis ne euh, président Macky Sall dafa am problème Touba. Euh, parce que li waral ñu ne dafa am problème Touba bu ñu xoolee élection yi nga xamante ne moom la ñu weesu. ku ne gis na ni daanaka mën nañu ne échec moo fa ëpp ci moom. lan mooy problème mu Macky Sall ak waa Touba jamono ji soxna si laaj nga question boo xam ne dinaa sawar lool ci tontu la. Mm. président Macky Sall lu ko daal ci digganteem ak waa Touba. Mm. dama lay wax ne la ñàkk kóllëre moo ko waral. Mm-hmm. c'est-à-dire maanaam waa Touba ñooy daw làqu gi nga xam ne. Mm-hmm. ñoo njëkk a fat Macky Sall. Mm-hmm. ci bi mu nekkee ci ay coono. bi mu ci ay xat-xat nekk ci ay jafe-jafe. soutien Touba la njëkk a am. boobu nag maa ngi ciy eh, maa ngi ci rendre rendre hommage sëñ Cheikh Mouhamed Lamine Bara. boobu moo fi nekkoon. dëgg la moo ko njëkk a fat ànd ak moom jàppale ko mm-hmm. wax président Abdoulaye Wade ne ko réeroo gi dox sa diggante ak moom damaa bëgg lépp na nga bàyyi mu set passeport mi ñu nangoon mais nañ ko wax delloowaat mm-hmm. dox digganteem ak kaso dox digganteem ak ay coono yu bëree bëree bëri mm-hmm. waaw Touba lebal ko ay teraanga yu bëree bëree bëree bëree bëri loolu nag dafa dem ba daf ko daf ko fàtte daf ko maanaam moom dafa dafa mën a fàtte kóllëre dafa mën a fàtte jëfi démb daf koy fàtte surtout jëf ju baax Touba nag dañoo doon nit ñoo xam ne ay gor lañ mhm. c'est-à-dire maanaam ñoom buñ xasee jàpp jàpp nañ buñ xasee bàyyi bàyyi nañ mhm. élection yi passé noonu nga ko waxee man ci ñi ñi ci bokkoon la ñi ñi ci ñi ko fi doon ñi fi doon jàppale tête de liste bi ci laa bokk malgré xëy na su mënoo jàppale tête de liste bi te jàppale président Macky Sall ah tête de liste bi ñi fa ñi fa nekkaloon euh, ñi fi nekkoon Benno Bokk Yaakaar waaw man waaw man ci ñi ci doon jàpp ji gën a vee gën cee sonn mhm. gën cee def sama sama ñaq ak sama kattan ci laa bokk man c'est la man maay première nit bu def mhm. ay sorties def ci ay vidéo mhm. pour rien que soutenir première tête de liste parce que tête de liste la d'accord waaw homme de social la nit ku baax la koo xam ne ko am ak lañ mhm. moom moo ma demande ne dafa bëgg ma ñëw jàppale ko ma ko ne ko man pare naa pare naa pare naa ci affaire u affaire u Macky Sall parce que du nit nit ku kóllëre soxla ci doomu aadama amul mu ñaan ma ne ma kóllëre gi ñu yàlla boole ñëwal jàpp ci Mhm. te man ma jàpp élection législative ay député la yu ñu war a yebal ñu ci ci pencum ndawi mhm. kon sañ na ma sañ na maa dem ànd ne loo xam ne lu personnel la présidentiel wala yu mel noonu mhm. su ma ko sañ mais nag comme que ma jël sama lépp def ko waaye man maa xam ne mënut ta gañeet Touba parce que waa Touba dee ko dé te doonuñu ko waxati waaw loolu nag li ko waral nga laaj ma ko mooy ñàkk kóllëre gu dox diggante ak ñoom ma wax la ci benn affaire man maay bokk naa ci première personne yi njëkk a soutenir président Macky Sall ci Touba. 2011 mm-hmm. 2012. Mm-hmm. élection présidentielle yi def naa ci sama lépp. Mm-hmm. ànd ak moom maag sëñ Xaadim Mbàkke bu sëñ Cheikh Ibra. bu sëñ Fallou premier tour yi. ku ñu wax imam Sall. ñun bokk nañ ci cadre gone yi njëkk taxaw jàppale président Macky Sall fi yóbbu parti bi fii ba Touba Bogo. yóbbu ko ci mboolem monde rural bi wër Touba yëpp. deuxième tour yi deux mille douze yi. créé mm-hmm. na naa mouvement boo xam ne les amis de Macky Sall la tudd. Mm-hmm. ay boo demee Séné boo demee Touba li wër Touba yëpp ci bokkoon boo demee Daaru Moxti. Mm-hmm. boo demee Daaru Salaam boo demee Gédé Bousso. foo dugg ci biir Touba dañ cee bokkoon. dëgg la ñu nekkoon ay ay ay ay cadre yoo xam dañoo ñëw ànd ak moom jàppale ko sans condition. mais bi mu faloo ñun la njëkk a sànni ñun la njëkk a xarab maanaam fii ma waxee nii na ba musta am lenn loo xam ne yëkkati na ko defal ko defal ñu ko. te defal boobu sax séntu wuñ koon parce que liñ doon def réew mi tax hmm. mais dafa am loo xam dafa ki buy sonn yow nga récompensé ko mu xam ne carrément li la doon defal amal na hmm. waaye li ko dal biir Touba lépp loolu moo ko teg andi fi ñoo xam ne hmm. ñoom la fi jiital ñoo xam ne amuluñ askan wi benn njëriñ xamuñ politique sociale buñ soxlaa nit ñi ñëw wàcc ci terrain bi bu jàllee pare na koo ci woo du la jël doo gis benn xew dëj la wala lu mën a doon ba gis suñu seen tànk loolu nag moo ko xañ Touba moo ko xañ réew mi yëpp. Mm-hmm. foo dem ci réew mi tey loolu loolu loolu loolu moo fa xew. Mm-hmm. voilà dëgg eh, mm-hmm. indi am na solo eh, ndax nag ñu bëri eh, comprendre ñu woon lan moo waral waa Touba yi am noo xamante ne ñu koy defee ak kii di président Macky Sall ak ak mu dem ba toll ci diggante yoo xam ne ñi fi nekkuloon sëñ Touba tàmbalee ko ci sëñ Sidi Mokhtar dem nañ ba ñaan ko publiquement loo xam ne demande sociale la woon mu lànk loolu it bokk na ci li tax waa Touba man ko bokk na ci 2012 bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy oto président Wade Wade mayoon waa Touba sëriñ si mu nanguwaat ko. Mhm. tàmbalee ko ci xalifa général Fall yooyu ay fee la xam ne ñii dañ dul fàtt duñ ko ko duñ ko ko pardonné. dëgg la voilà lii mooy mooy a gagné Touba. Mhm. avec tout ça nag bi ren gi bi mu ñëwee gis nga ni mu doxalee ak waa Touba. Mhm. voilà ñoom sonal nañ ko ci élection yi ba mu jàll félicité tedd liste bi tudd ko amul soxla ci ñoom. bi mu ñëwee ba dem recevoir genn kilifa ak diine. Hmm. ah di mu fa ñëwee ba ni mu ba ni mu genn kilifa ak diine don yi mu doon am am jox waa Touba sax nga xam ne loolu moom c'est c'est primordial. Hmm. nga xam ne eh, loolu depuis mille neuf cent soixante ba léegi. Hmm. màggalu Touba gu mës a jot dañ koy andi ci màggal gi parce que loolu demande sociale la moom waaw ndax askanu Touba ni mu toll ak ñi fiy daje. war na ku yor réew mi nga dimbale leen jàppale leen. mais loolu lépp daf ko dagg ren. ren defu ko si màggal gi. bi mu ñëwee dégg nga li wax Sëñ Muntaxa moom ñëw fi ngir dara moom ñaanu lu defu dara. Mm-hmm. waaw waaw loolu la wax. dëgg la waaw loolu nag tax na moom lu buñ ko suuroon benn suur nañ ko ko junni. Mm-hmm. voilà moom. dëgg la est-ce que loolu yaakaaroon ni li ko waral bokk na ci ndax euh, dañ doon wax ni jamono yee passé si ginnaaw dafa ñëwoon seet si dafa ñëwoon seet si euh, xalif général plutôt Mm-hmm. ba mu ñëwee seet si eh, xalif général Almuntaxa Bachir ba fa ñëwee. Mm-hmm. Euh, doon ko demandé pour ni dafa bëgg a def troisième mandat. Mm-hmm. ñu ne sëñ bi def ko ne loolu teg ko ci suuf ndax gor bu xasee ba wax ak ay nawleem dafay respecté kàddoom. kon waxee troisième mandat teg ko ci suuf. est-ce que euh, loolu ko euh, xalif général tontu moo waral mu gën a won ginnaaw waatu Touba gën a bàyyi dagg lépp lu mu fa daan def. loolu de moom xaw ma am na wala amut waaye bu amee yàlla na am. parce que loolu dong lañ loolu dong lañ njort ne moom la ko sëñ bi war a mën a digal mhm. parce que sëñ sëñ Muntaxa moom bi mu fi dégg nga lim ko wax mhm. moom nee na soxlawul dara dara dara lu sëñ Tuubaa àdduna mhm. te wér na ku ne xam na ne am na ko kon soxlawul leneen dëgg la voilà moom musta xam soxla soxlaas àdduna musta am ci saayir musta am kon bu ñëwee tey ne ko damaa soxlaa def nangam mu ne loolu mënul nekk loolu moom man lu lu lu lu lu acceptable la maanaam luñ mën a nangu la loolu nag man awma ci awma ci ma leer na noonu la demee waaye bu demee noonu nag alhamdulilah rabbil alamin la jox parce que foofu dong lañ lañ mm-hmm. euh, ne suñu baax mm-hmm. euh, tey question troisième mandat yow tey en tant que euh, ambassadeur ak koo xamante ne da ngay yëngu ci li nga xamante ne mooy politique naka nga ko gisee yow ak lan moo ci sa point de vue. troisième mandat bi son point de vue. Mm-hmm. dama ko réviser catégoriquement. mentalement. moralement mm-hmm. spirituellement mm-hmm. maanaam da tous les façons dama ko réviser mm-hmm. parce que way wii këpp gaal day su ko way ci tefes te xam nga ne suñu sous-région bi li fi xew Afrique fépp ngi tàkk mën naa la wax loolu boo demee Mali boo demee Burkina façon boo demee Tchad Tchad moom gis la fa xew ba ki demul presque ay ay ay cinquantaine de personnes ren tiir nañ leen. te lañ doon bañ mooy mooy tradition boo xam ne daf tradition boo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa dañ ko trahir trahir peuple ba. Mm-hmm. kon loolu te lépp lu xew Afrique nag xam ne jombul Sénégal. dëgg la jombul Sénégal. Mm-hmm. te sunu peuple bii ñu nekk dañoo mesure léegi. Mm-hmm. amul lan loo xam ne danañ ci xaarati ken li ñu wax mbéjum kanam la ñoom ñoo koy fajal sen bopp. kon question troisième mandat il n'est pas question moom ci boppam. xam na ne troisième mandat mënatu koo am. amul ci benn plan bu mën a teg bu ko mën a nekkati bu ko mën bu mu mën a amati. kooku moom ñun man mii di waxee damaa partationnel ak ñi ma bokk ñoom xam ne ñoo bokk ay gëm-gëm. amul lenn lenn loo xam ne mën naa tax ñun ñu taxaw. jàpp ci troisième manda wala ñu wax lu ci jëm. dañ ko refuser catégoriquement. voilà kon yaakaar naa ne foofu da ngay rejoindre ki nga xamante ne mooy Mimi Touré ndax xam nañu ne. moom waaw Mimi nag Mimi nag du référence du référence Mimi nag Mimi du référence ci man. Mm-hmm. du référence parce que moom mboolem de dal réew mi li ci ëpp nag def ci am part de responsabilité. Mm-hmm. parce que bi mu nekkee ministre de la justice gis nga li mu fi def lépp. Mm-hmm. kenn baalu ko ko. bi mu nekkee premier ministre gis nga li mu fi def lépp. ba ñu desin mooy Mimi à personne. nekkul nit nekkul nit ku social amul soxla ci askan wi. musoo gis lan loo xam ne nee nga mën ngaa apprécier ne lii Mimi moo ko mas a Sénégal. Mhm. kon kooku ay waxam mënu ma ko gëm. ba jëlee si nekk directeur directrice su campagne yu nit. Mhm. lu matul deux mois après wala trois mois nga bëgg a taxawaat la nga wàññi ko woon wër réew mi wax ko nga waxal ne loolu baaxutoon. Ah, doy na waar. ay intérêt personnel moo leen jaxase ñoom. daal mhm. nañ ko lijjanti seen compta seen seen comptation bopp la. kooku mi du ma ci jël comme référence li may jël comme référence daal mooy li peuple Sénégal wax peuple Sénégal nee nañ Macky Sall troisième mandat doy na mm-hmm. du fi euh, daal nañ koy delloo si si li nga xamante mooy gouvernement Sénégal gis remaniement bi nga xamante aussi euh, def nañu ko tey gis-gis nga ci am. Euh, poste premier ministre nag. Mm-hmm. bu premier ministre en personne moom. Mm-hmm. ki fi teg am naa ci moom yaakaar. parce que nit la koo xam ne moom it. Mm-hmm. Euh, ku am ay valeur la. Mm-hmm. nit la koo xam ne ba léegi buntu xataal bu ne président Macky Sall def na ko ko ak mm-hmm. gouvernement ko ci gouvernement bi parce que mën naa wax loolu. ko ay sabotage. humilier ko mais dafa toog am grandeur. loolu la xol bu rafet la. te maa am ci moom yaakaar ëllëg sax moom mu jël réew mi. mais nag indi premier ministre ci ci ñu toll nii. ngir ne régler situation Sénégal moo ko tax a jug. Mhm. loolu lépp dama lay wax ne la dafa bokk ci manipulation pour bëgg am troisième mandat képp. mais moom lu mu defutoon at yi passé mhm. benn at bi ko fi dese góobu ne mën na ko fee mën na ko fee mhm. maa ngi souhaité nag premier ministre moom yàlla may ko ndam. ba xëy na moom li ñu yaakaar ci moom ñun askanu Sénégal ñu gis ko. waaye moom moom président Macky Sall bu andi woon président France sax def ko premier ministre. goo ma ne maanaam situation situation politique du Sénégal ak situation sociale du Sénégal. Mhm. ak économie bi fi mu a luñ mën a reprendre lu mën a baaxaat. Mhm. gis nga soxna mhm. am na loo xam ne boo koy defar da ngay tàmbalee ci sa bopp. dëgg la imaginal président de la. li ñu naan weñ weñ baa nga bañee ca mbañaxaan. ca mbañaxaan wa. bàyyi ca sa tànku ci sa weewu bopp nga koy tàmbalee gis nga président Macky Sall. mooy président bi nga xam ne moo gën a cher parking automobile Mm-hmm. mbooleem voiture yi fa nekk ay voiture luxe yoo xam ne ay centaine de millions lay jëf mm-hmm. gis nga léegi li mu xewal mooy bu ngoonee buy doxantu wut lu mat ay Range Rover yoo xam ne parce que la mm-hmm. lu na tàmbalee pour pour defaraat réew mi wàññi moom train de vie bi mu dund bu cher lay dund moom njabootam loolu nag réew mu mel ne Sénégal réew mu pauvre Sénégal réew moo xam ne presque mën naa wax ne dañuy taxale attaluñ ko dëgg la su bëggoon a defaraat réew mi wala mu bëgg a dimbale askanu Sénégal foofu lay tàmbale. Mhm. voilà. d' euh, mm-hmm. ñu gis ne aussi euh, yokk nañu li nga xamante ne mooy budget bi ba noppi nag daal di wàññi ñu ngi wax tamit ci li nga xamante ne mooy wàññi euh, dund bi loolu tamit naka nga ko gisee. man de dama koy ñaan nax yi mu doon nax réew mi. Mhm. lu mu mën a lu lu mu bañ koo continuer. Mhm. ak Sall bi mu fi ñëwee ba léegi day nax réew mi. nax leen ko jàll ci parce que lii ko dal ak ak Sénégalais yi ñoo ko dal parce que nax yi nax réew mi dafa metti dëgg la naxoon na fi réew mi ne dana wàññi location bi dem na ba mujj moom mu ne moom mënul ko mënu koo gérer boppam. Mhm. bu mu duggaat ci polémique ci ne mën naa wàññi dund bi. mun mënta nekk su fekkee lu ta nekk la. da mhm. teel a xamal askan wi ne loolu mënta nekk parce que askan askan wi sonn nañ trop ci dund bu cher bi. dëgg la tey jii amul dara looy laal loo xam ne waxuma la ñu doublé ko mais dañ ko triplé. Mhm. ñu kon amul lu ñu lu ñu wàññeet xëy na lañ ca tegoon kay lañ mën a wàññi waaye dund bi moom mënatu si koo mënatu si koo moom ci seize wala quatorze mois yi ko fi dese. Mm-hmm, mm-hmm. bu dee budget bi it budget Sénégal dégg naa dañ ko def ba mën na six mille milliards ak quelque. waaw su luñ ko jëmee. Mm-hmm. maa ngi ñaan assemblée bi nag. nañ teel a bàyyi xel budget Sénégal bi ñu wax ne dañ koo yokk. ba bu session bi jàllee ñu man koo auditer. parce que daanaka ay ministères yi lu ma trente huit ministères wala trente six mm-hmm. ñoo xam ne seen train de vie dafa cher mm-hmm. nañu dund cher amuñ soxla ci askan wi li ñu lekk cher mm-hmm. boo leen boo tegee budget si si six mille milliards yi mën naa wax ne lépp ci ay tappale rek la ay marché gré gré rek ci lañ ko tegaat dëgg la loolu moom nañ xam ne assemblée bi am nañ ci am nañ ci am nañ ci part de responsabilité heureusement nag bi nga xamee ne léegi assemblée légalité moo fi am waaw léegi moom yaakaar naa ne Mm-hmm. way wi mën mm-hmm. man dégg naa ko waaye awma ci benn yaakaar tey gëw gëm naa ne ay tappale ak i fen ak i ay tappale daal ma ko la <laughs> lan moo tax nga jàppee ko ay tappale <laughs> waaw xam nga moom yor na réew mi depuis deux mille dix ba léegi uh, uh-huh. deux mille douze ba léegi mm-hmm. dem ba dernier a dernier arène dese ko mu naan damay yokk budget bi loolu ay tappale la waaw ay tappale la uh, dëgg la kon uh, xam naa sëñ bi waxtaan bi neex na lool Mm-hmm. waxtu bi daal di dañuy dar képp ñu bàyyi ah, la nga daal di euh, tàggatoo ak euh, internet télé Sénégal TV Sénégal yi nag laay laay tàggatoo di leen wax na leen mm-hmm. képp kuñ gis na moo gën ci réew mi mm-hmm. nañ teel a dox jëm ci moom balaa ñëw àgg deux mille vingt quatre que soit muy Ousmane Sonko wala muy keneen parce que réew mi dafa toll ci liberté foo xam ne majeur nañ léegi amul kenn kuy taxaw. Mhm. di proposé wala ngay imposé kenn. moom mi yàlla moo ko fi tegoon. Mhm. ay mandaam jeex na. Mhm. na gëm yàlla moom ñu mu àndal te xam ne ay mandaam jeex na. te ku ko bëgg na ko wax ne ko mënut a am troisième mandat. troisième troisième troisième candidature sax laa wax. ñi nga xam ne ñooy conseil constitutionnel nag. waaw nañ xam ne benn at benn at rek moo amul moo amul appel muy bu suñu borom. wallahu yaxkumu laa mu xaq ba lépp lu ñu a fii nañ xam ne dañ ko àttewaat ëllëg mm-hmm. te buñ fexee ba valider troisième mandat bii mm-hmm. troisième candidature a bii mm-hmm. Sénégal dana a te su boobaa ñoo ñoom ñooy responsable yi président Macky Sall nag li mu am li Sénégal ko nag moom am lante ak moom remplir nañ ko moom na am jom remplir li Sénégal yi dénkoon ñoo ko dénkoon moo leen doyoon doyatu leen na am ngoru bàyyi fi réew mi te dem ci jàmm ak salaam maa ngi souhaité suñu réew mi mu nekk réewum jàmm mm-hmm. new nekk réewum na réewum naataange mm-hmm. suñ borom wàcc fi dal mm-hmm. Sénégal yi maa ngi leen di interpellé wax leen ne leen képp ku leen doy nañ dem tànn te bañ a tànn ci mer wala ci parparloo bu fekkee Ousmane Sonko moo doy réew mi réew mi nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ ànd dal te dem def lépp dans la démocratie te président Macky Sall moo xam ne nguur gu nguuru yàlla day jeex ñi nga xam ne ñooy juge yi àtte it mm-hmm. nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel mm-hmm. nañ xam ne képp ku àtte fii bu ëllëgee da nga ko àtte waat benn àtte mm-hmm. rek moomul appel muy àtte bi suñu borom wallaahu yaxkumu laa mu aqiba li xukmihi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Mamour Niang ambassadeur moom la ñu xaloon waxtaan bu am solo boobu lay jëm ci li nga xamante ne mooy actualité réew mi mm-hmm. rawatina nag lii di actualité politique bi di la jaajëfal bu baax euh, di la wax rek nuyu ñu waa dëkk bu sell ba nuyu ma sëñ Xaadim bu baax a baax. <laughs> incha allah rabbi dana ko dégg. jërëjëf euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf